société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen seen revue de presse dali na ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyando yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu élection présidentielle 2024 lenn lu nekk mën naa am ci réew waaye tamit lenn lu nekk mën nañu ko gis ci langue politique yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba desal mooy moo am diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias maanaam rivalité am ci te nag Barthélémy Dias ginnaaw Kanté loolee tax na Barthélémy Dias dooleem yokk na bu baax a te moom Barth doomu Samba bi soo muy tuule nag dana imposer candidature am 2024 su dee Khalifa Ababacar Sall bokkul ci élection yi waaye nag bu dee Ousmane Sonko bokkul loole nag dafay gën neex ci ki xam ne mooy Barthélémy Dias waaye tamit moom Barth génnagul ci mbàlle gi ndax mbiri njaga jubale bi mu nekk maire ville bu Ndakaaru dafa tax mu daal di mu gën a am njiitul Pastef di Ousmane Sonko ba léegi moom tim génn gul ci mbàlle gi ci lu jëm a mbiri Adji Sarr su ne nag dañu ko kale kale Khalifa Ababacar Sall bàyyi Barthélémy mu daal di loole nag dina tax Barthélémy Dias mën a am yaakaar yéene kaay gi di réew mi quotidien na xaw kan mooy bokk ci élection présidentielle 2024 waaye Macky moom bu si bokk mbir mi nag mën naa weexaat si moom ndax gaa jamono ci takk nañu taxawaa ngir nag amal ay concert contre le troisième mandat nga xam ne jamono nekkoon na fi ministre nee na Macky Sall ak war a moytu mbooleem njombe yi nga xam ne Abdoulaye Wade defu na ko ba ñàkk nguura loolee Macky ak Benno dañu koo war a nag moytu te jamono ji moytuwuñu ko kàddu yi Thierno Lo la yéen kaay gi de la sa ak source xëy di ñu xibaar naan ñu maire bu ville bu Guédiawaye di Ahmed Aïdara fan yii dañoo wax ne dafa yëkkati woon ay kàddu wax ne waak intercoalition yi wala bu ñu ko jiitalee def ko seen candidat ci assemblée nationale dina gagné ndax dina am ñeenti député yoo xam ne ci parti socialiste la ñu bokk danañu ñu jàppale ko kàddu yi Ahmed yooyu nag tax na waa parti socialiste ñoom maire bu Fouta nee nañu Ahmed Aïdara waxul dëgg day kàcc li mu wax ay fen la waaye nag ñun danañu ko jéem a ndax dafa bëgg a yàq sunu dara yéene kaay gi di vox populi Ahmed Aïdara maire bu ville bu Guédiawaye bi ñu ko laajee na ko yow wax ne am na ñeenti député parti socialiste yoo xam ne pare nañ ngir ñëw jàppale la Ahmed Aïdara nee na loolu musuma koo wax ay journaliste ñoo jóg bëgg a yàq sama dara yéene kaay gi de la Tribune ñi nga xam ne nag ñoo fare ak Macky Sall maanaam guerre des ñi nga xam ne ñoo Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Aminata Touré Aly Ngouille Ndiaye ma ne la gis nga ñii kenn ku nekk ma ngi def ay manœuvre di def ay dëbbal ngir nag mën a wuutu Macky Sall yéen a kaay gi de la duñu xibaar naan ñu en tout cas Macky xam ne ñoom la àndal rawatina waa APR bu ñu leen xëyee nag wax leen ne leen APR jamono ji tasa tasara maanaam xeex ba xuloo ma nga fa bu leen betta ndax nag Macky samp ab gouvernement te a du xul doo ko ñaxtu loolee ci boobu nag munta ñàkk mën a la yéen a kaay gi di Dakar Times xëy di ñu xibaara naan ñu Abdoulaye Bibi Baldé mi nga xam ne mooy directeur général bu poste jamono ci ma ngi ci ay jafe-jafe mën a la postong si jafe-jafe jamono ji sax ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nekk poste maanaam jot seeni salaire loolee jafe na leen loola maanaam ngir nag waa poste Bibi Baldé fay salaire ñi nga xam ne ñooy liggéeyee poste nag loolee jafe na loola mën a la xaalisu poste bi fan la jaar yorinu bon mi nga xam ne moom la ñu yor poste loolee bokk na ci li ko gi di li quotidien lu jëm ci wàllum ressources naturelles yi maanaam pétrole bi ak gaz bi Macky Sall nag woo na ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal ngir nag ñu daal di koy waxtaane Macky Sall na ñi nga xamante ne ñoo jàpp ne waaw ñoom xam nañ mbirum pétrole ak mbirum gaz fekk xamuñu ci dara seen wax jooje nag dañu ko war a bàyyee maanaam a waxtaan xam-xam akuk dala ba tey ci journal bii de la sa moom Macky nee na amul lenn loo xam ne lu lëndëm la ci pétrole bi ak gaz bi amul tamit lenn loo xam ne ñoo ngi ko ci làq waaye li ñu war a def daal ñi nga xam ne am ñu si xam-xama maanaam yee ci askanu Sénégal rawatina nag wax leen ci dëgg moo gën ñu siy wax ay wax joo xam ne amul bopp amul genn te yow bu wuñu fenn yéene kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu nag mam Mami Diallo mi nga xam ne moo ñàkk ba kana fan yi ñu génn ca diwaanu Kédougou ca centre de sante ba ñi nga xam ne nag ñoom la ñu njort na ñoom seen loxo laale na ci maanaam bi ñu leen di dégloo waxi kasaw-kasaw la ñu doon wax contradiction bi mel ni tulleeg màlle ma ne kii naan guy gi kii naan daxaar gi yéene kaay gi na ñoo ngi jëm nag ci ubbi sab information judiciaire yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér gi yaram ge léegi tey ñu tàmbalee gréew bu dee nag bàyyiwuñu ñi nga xam ne teg nañu leen loxo ci faatuk Mami Diallo ca diwaanu Kédougou yéen kaay gi de la Réveil nee na opérateur téléphonique ñoom nag xamuñu li nga xam ne mooy crise bi journal bi nee na firi Free Expresso ñoom nag ci atum 2021 bi maanaam liggéey nañ ci toll ci 630 milliards yéen kaay gi de Libération xëy diñu xibara naan ñu fan yi ñu génn doon ngeen dégg ñuy wax ne dafa am benn ambulance maanaam bu leboon drogue yamba ca diwaanu Kolda te ñu teg ko loxo yéen kaay gi ne ne nekk sëfoor boobee di Mamadou Gaye ki yoroon ambulance bi yàgg na koo def ay weer yu bare bare bari ndekke noonee la doon defa journal bi ne na ambulance boobee nga xam ne nag ambulance sub hôpitalu Colobane la dafa waxoon kilifa yi yor hôpital booboo na leen ambulance bi dafa paan dama ko yóbbu ci mécanicien bi fekk réparé na ko bu yàgg yàgg yàgg dépanné na ko bu yàgg maanaam nag di trafiqué drogue diggante ñu xibaar naan ñu doomu réem Sénégal bii di Bamba Dieng mi nga xam ne moo bëggoon a jóge nag Marseille ngir dem ca diwaanu Nice dañu ko doon defal a ab visite médicale waaye visite médicale ba nag dafa mujjee raté maanaam mujjuta baax te nag mercato bi jeex na kon na ki nga xam ne mooy Bamba Dieng réew mi quotidien nee na du jóge Marseille yéen a kaay gi nee na ki nga xam ne mooy Idrissa Gana Gueye moom nag delluwaat na Everton nee na bakkanam la ci tekk yéen a kaay gi tamit nee na Abdou moom dem na Leipzig sa Allemagne yéen a kaay gi di sunu làmb nee na école de lutte Balla Gaye numéro